ak mbokki xarit yi faral saa su ne di ñu teewlu à travers Diaspora News TV asalaamaaleykum amoon mbégte di ànd ci li nga xam ne rek moom moo gën a fës ci xibaar yi yi njëkki ci xibaar yi dañu koy door ak li nga moo di agression Maimouna Ndour Faye moom Maimouna Ndour Faye nag di ab journaliste di njiital chaîne bi ñuy woowee 7TV gannaaw ba moom ak Farba Ngom di député ci assemblée nationale noonee nag la ñuy xamal ne rek ba mu ñibbee ca buntu këram dañu ko daal di agressé ba daal di koy jàmm bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek moom moo di moom moo Mamadou Awa njaay moom mi leen nag ma ngay woy di xam le ne rek jamono juñ toll nii moom may Maimouna Ndour Faye ma nga ca hôpital Ouakam bu Yasso la mi nga xam le ne rek mooy ñàkk na ab deret ju bare bare waaye rek la ko sauvé bokk na ci ki nga xam ne rek moom mooy ka mu doon wuyool téléphone ba noonee nag la ko ko daal di wootee xamal ni seen mbokk mi di may Maimouna Ndour Faye dafa daal di nekk ci ay jafe-jafe noonee nag la ñu ko ñëwee daal di ko yóbbu ca hôpital jamono juñ toll nii nak ñu bëri daal du ci àddu ñu dem ak yéen dafa nga xam ne rek ba tey moom moo di ci agression Maimouna Ndour Faye ka ca àddu bokk ci njiital réew bu Sénégal di président Macky Sall moom mi lay nag daal dinay àddu jëmale ci mbir mi nga xam ne rek am na ni ki démb ci guddi gannaaw ba Maimouna Ndour Faye daal di noppee ci émission ba nga xam ne rek moo doon amal ak Farba Ngom noonu ñu agressé ko ba gaañ ko moom njiitum réew xam ne rek jamono ju ñu toll nii ma ngay naqarlu li nga xam ne dal na ci kaw Maimouna Ndour Faye waaye it di ñaawlu li nga xam ne rek moom moo di gaañ gañu ko gaañ waaye ma ngay xam ne rek lépp liberté de la presse ak kaaraange ak li nga xamné ne di protection dañ ko jël dal di koy yok ngir rek ñu dal di mëna cham ñi nga xamné rek ñom ñoo di journaliste yi lay moom mi lay nag di njitum réew bu Sénégal ngay xam ne rek ki def jëf ju mel yoon mi ngi ci ay enquête dana dana daal di def liggéeyam ba ñu teg loxo loolay waral nak moom mi lay di njitum réew bu Sénégal ma ngay xam ne ni dana xar tanku tubayam ngir rek dal di garantir ab environnement bu serein waye it dal di approfondir li nga xamné ne di enquête bi lay ba ki dal di def jëf ju ni mel ñu teg ko loxo ci anam yi bu gën a gaawee. keneen ko àddu ci bi lay agression bokk ci nga xam ne rek moom moo di Madiambal Diagne moom mi lay nag daal di xam leen ne rek jamono juñ toll ni yëgte ko ci li nga xam ne moo di agression Maimouna Ndour Faye bi lay moom njiital patron de presse bi lay nag di groupe communication ma ngay xam leen ne rek Maimouna Ndour Faye ak képp ki nga xam ne rek jamono juñ toll nii daan nga àddu ci wàllum politique da nga daan subir li nga xam ne moo di ay agression verbale maanaam nag ci réseaux sociaux yi dañ leen daan atte ñàkkal di leen menacer ak i def yu ni mel loolay waral waral nag ñu seetaan ko ba muy egsi fii te moom ma ngay xam ne rek jamono juñ toll nii génneewu ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di partisan wu Pastef yi ma ngay regretté bu baax lii di loi bi nga xam ne proposé nañ ko ba fas yéene ko jébbal assemblée nationale mi loi d'amnistie bi lee ndax li ma xam ne rek mooy ñi ñu jot bàyyi am naay agresseur loolee nag di waxi Madiambal Diagne gannaaw nag ba mu génnee addu ci li nga xam ne moo di agression may mën a nduur fay ñu wéyandeeg yenn ci naqar ak tis ga ñoo amoon ni kiy démb wala ba ki démb ca Saint-Louis di ab chavirement de pirogue bu yeboon ay migrants sénégalais ba nag ñu ne rek bilan ba daal dina yokku ndax ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay nit jot nañ cee ñàkk seen bakken waaye rek nag ña ngi ñuy xamal ne rek teg nañ loxo juróom benn ña nga xam ne rek mën nañ ne ñoom ñoo jiite woon gii lay voyage maanaam d'immigration clandestine bokk na ci kenn ki nga xam ne ñeenti góor ak benn jigéen la ñu xamal ne rek mbir ma nag dafa dem ba doonoon li nga xam ne moom moo di ab entreprise familial ndax rek ñu ngi ñuy wax nii rek ki jigéen ko moom moo géré woon lépp luy wàllum caissière maanaam xaalis ak xaalis bay dugg ak a génn waaye it seen i papa ñu nga woon ca li nga xam ne rek di juróom benn ya nga xam ne rek jàpp nañ ni ñoom ñee jiite voyage bi lee waaye ca ñun jàpp teg leen loxo ba tey jëlee rek ña ngi xamal ni ña ngi xamal ne amoon na ay voyageurs yi nga xam ne rek ay rescapé lañu woon maanaam ñoom nag ci ci émigration bi lañ bokkoon waaye génn nañ ci ak bakkan ñoom ñi lay nag bokk nañ ci nga xam ne rek jàpp nañ ay complice lañu ña ngi leen jàppee ca diggante Mbour ouest ak fa nga xam ne rek moom moo di Diourbel centre ñoom juróom-benn yi leen nag daal di nañ leen yóbbu ca brigade de recherche bu Mbour jamono juñ toll ni yoon ma ngay wëyal liggéeyam. sport la ñu jéem ak yéen nouveau format coupe du monde des clubs gannaaw na coupe du monde des clubs fukk ak juróom-ñeent ci équipe ya nga xam ne rek. qualifié nañu lañu daldi énumérer niki tay ji gannaaw nak bañu xamlé ni rek fanwer ak ñaar ñoo waron dem ci jongante bi lay fuk ak juroom ñen yi ñom dal nañ leen di fessel bes niki tay ci fuk ak juroom ñent yoy lay mën nañ ci tuddu ñi nga ñom ñoo di Wydad Athletic Club ak ñi nga xamné ñom ñoo di Al Ahli Jamaa Rouge Daura ak ñi nga xamné rek ñom ñoo di Manchester City FC Bayern Munich Paris Saint-Germain FC Inter Milan FC Porto Benfica CF Monterrey ak ñi nga xamné ñom ñoo di Skat Sounders FC ak ñi di Auckland City FC ak ñi nga xam ne ñoom di SE Palmeiras ñi nga xam ne ñoom ñoo di wuyoo ci tuuru Fulminense ak yeneen ñi nga xam ne rekk daal dinañ leen lim ñoom na fukk ak juróom-ñeent yooyu lay la ñu jot a génne ca ñi nga xam ne ñoom ñoo di fanweer ak ñaari yi war a dem ca jongante bi ñu duppee Coupe du monde des clubs. ñu jeexalee ak yéen li nga xam ne rek moom moo di wàllum people Miss Sénégal bi wuyoo ci turu Fatou Lo jamono juñ toll ni nag bokk ca jonganteeg Miss ba nga xam ne rek moom moo di Miss Monde moom mi leen nag li nga xam ne moom moo di Sénégal jamono juñ toll ni ña ngi xamal ne rek ña ngi koy joxoñ baaraamu tuuma ni moom mi leen nag bokk na ci Miss ya nga xam ne amuñu benn popularité maanaam bokkul ci liste ba nga xam ne rek mooy Miss yi dem ca foofu lay nga xam ne ñu ngi leen di tudd chaque jour la waral nag kenn ci ki nga xam ne rek spécialiste la en mode daal dina yëkkati kàddoom moom nag la muy xam ne rek mooy miss bi di fàttaloo amul benn coaching bu baax ndax ña ngi koy joxoñ baaraamu tuuma ci euh, style vestimentaire am maanaam nag ca wàllum solinam moom la nga xam ne des na loolu par rapport ak ñi nga xam ne rek moom lañ fay fekk ñu ngi tudd ci ki nga xam ne moom moo di miss Côte d'Ivoire miss Nigéria ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di bu Comore ñoom ñi lay nag ña ngay àddu ba tey di woy di xam leen ne rek jamono juñ toll nii ña ngay ternir image du Sénégal à travers fàttaloo ndax rek ña ngay xam leen ne rek jamono juñ toll nii la war rek mooy ñu coaché ko bu baax a baax ci solinam ci waxinam ak ci doxinam am mbokki xarit yi faral saa su ne duñu teewlu à travers Diaspora News TV lii lañ doon indiloon comme xibaaru diggu bëccëg di leen jox dig daje ba léegi allah tey ñaan saa su ngeen wéy di ñu topp bu leen fàtte benn yoon abonné ci chaîne bi waaye it di leen activer seen cloche de notification ngir yéen gis suñuy vidéo yu yees bañ leen raw di si la vous bien et bonne de programme jërë ngeen jëf